ne fu ko màggal danañ la màggal li bamba woote ne buñ ko digle ci bernde looloo di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal itaali xam na faranse xam na a xam na li moo di màggal waroon na kon tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jóg leen waa ji safar yéen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy ñëw tuuba fa muy aw ñam ya dëkkay aw ci barke màggal ñi yóbbu yam ya ci hôpital ya ñi yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak pirison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle ku yi dem na yóbbu aw ñam bernde ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal bu dëggal des na la màggal fonk ko moo war jàpp ko moom jimriñu karawaan bi moom sëriñ Moustapha Sy moom sëriñ Malick waaye nag nuyoo yooyu yëpp day tege ci loxol sëriñ Cheikh Mbacké mii nga xam ne mooy ambassadeur Sëriñ Tuubaa ci Jolof rahmaan rahim assalaamu aleykum wa uh, sëriñ Ahmad ñu ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Moodu Mbàkke si ak mbooloo mi nga xam ne ñoom àndal jóge ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha jóge itam ci Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xam ne moo yore kàddu yoonu murit jógee itam ci turu sëriñ Abdou Lahad Gaïndé Fatma mi nga xamante ne moo jiite liggéey bii ñuy nuyu sëriñ Modou Mbacke bu baax di nuyu Ahmad Ayaan Thiam kaddu sax ki ko fi ñi ko fi am mooy moom yi nga xam ne sëriñ bi da ko doyloo dénk ko liggéey bi ay at mu di ko doxal doxalin wu rafet ba ak si fi tey li tax ma ànd ci mooy noonu mu ko waxee bi mu soo bi mu jublu see ci barab bii la ma wax ne ma dañoo bëggoon a ñëw caameen jolof ma ne ko caameen jolof kan lañ fay fekk si mu ne ma maam Samba Thiam lañ bëggoon a ñëw karawaan bi ubbee fi euh, ren màggal gi ma ne ko maam Samba caam bi dëkk ba ñuy wax caam de caameen bi nekku fa mu ngi ci wetu Mbàkke jolof sorewut ak fi ñuy wax jam jale waaye kon damay daal di jokkoo ak Ahmed Ayaan Thiam ndax yëg naa jéego gëstu ba xam barab ba ba mandargaal ko kon dana rafet kon ñu jokkoo ceeg moom sëñ Moodu ne ma xam naa ko bu baax bi ma wooyee alaaji ayaan mu xamal ma ne ma sëñ Moodu woo ma kon nag li waral bis bi daal mooy ñu teew si fi ngir kóllëre gi nga xam ne ma Samba Thiam amoon na ko ak maamaaram wa sallallahu wa sallama ala xayri banil bashar sayidina wa mawlana wa habibina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin ixwati fi kulli makaan ana aajizun an shukri al yawm li anna maa shaahartuhu wa maa ahsastu bihi min acmaaqi qalbi yafuuqu qudratii li taabiri amma yaliju fi majaamii wa fi mashaariri mashaa'iri yàlla rek moo mën a def lu ko neex jotaay bu ni ku dul yàlla mënu koo def ndax moom rek moo mën a sawarloo ay jaam ba lu baax lu ne ñu àttan caa def lu ne ngir mbaax gi fés ngir mbaax gi law ngir mbaax gi des fi rek ba faw askay maam maaram mbàkke askay maam maaram mbàkke moo xaritam bu tedd ba maam ma sàmba caam mii nga xam ne ki ko jur Mahmudu Chami la tudd dëkk Siri Cham go Cham googu mooy Chami waaye bi mu ñëwee Tombouctou jàll ñëw Guinée benn nguurug lislaam a nga fa woon muy jàngale di liggéey mu toog ba yàgg wàcc wàcc Fuuta ca Matam dëkk ba mu juddoo foofee la Maam Masamba Caam doomam juddoo waaye au lieu ñu naan saami caam ji ñëw maam maaram dafa mel ni maam Masamba Caam ak dundam yàlla moo ko yàlla moo ko jëmale muy muy wër may ku tudda maaram maam maaram mbaax gu tudd maam maaram teddaanga teraanga ju tudd maam maaram ba yàlla def ñu daje waaye cey ñoom ñaar seen wëllëre wëllëre bi rëy na te rafet na te dëggu na ndax nun ca Tayba ca Fuuta boo juddoo bala ngay am juróomi at faw nga mokkal diggante maam Maaram Mbàkke ak maam Masamba Caam seen diggante bala ngay dal jàng wane seen diggante wëllëre bi ak xaritoo gi ñépp maase ci ne ñoom ñaar fa ñu dajee ci wëllëre mooy xam-xam mooy ab yar mooy bëgg lu baax fas yéene jihaar ngir taxawal lu baax kon diggante maam Masamba Thiam seen wëllëre buñ ci waxee benn baat walla ñaari baat dana doy kiy déglu mu xam ne ndekkat wëllëre wu ni mel mënul jur lu dul lu mel ni lu ñuy gis tey ci kër maam Maara Mbàkke ndax ku yëm ni maam Masamba Thiam jàngal jamono ñépp nekk ci moom ëppoon na ay téeméer waaye ba mu demee ah, nettali nettali yi dañuy bëri ak la dox diggante maam maaram ak taalu bi ba wax ji may bëgg a wax ñëw dafay bari ku ci xuus doo dem waaye daal ba bés ñëw maam maaram def lu benn taalu bi mënula def ci kër sëriñ ba ci kër maam Masamba Caam waaye daal sëriñ bi doyloo la ko jëfi maam maaram wax dafa mel ni jëfi maam maaram wax la joo xam ne dafa ñëw na wat ci xolu maam Masamba caa mënatu caa teggeeku mënatu caa taweeku mu ne ca watt maam Masamba caa am jóg woo ñëpp ne leen aha fekk na jàngale na ay at parce que màggee na maam maaram 35 ans moom maam Masamba Thiam mu daal jékki-jékki daal ne léegi yéen ñëpp di fi jànge ku bëgg a jàng nettali wi ñu bëreen koy nettali ñëpp xam nañ ko dama ciy jaar rek ndax ñun noon ko jànge ba ñuy am juróomi at wax ji booba dalagunu jàng mu ne aha yéen ñëpp ñëw leen léegi daal maa jàngal naa leen ba fi ma toll ku bëgg a jàng ku bëgg a xam-xam su la neexee des fi waaye daal li ma leen bëgg a wax mooy sëriñ maaram mii yewi naa ko dumaa ko yewi man-manam moo ko yewi xam-xamam moo ko yewi responsabilité bu ko yàlla misura dénk moo ko yewi mu jóge fi ma leen di yëgal nag di leen ko baaxee ne moom Massamba Thiam mooy wax ku bëgg xam-xam de mën nga fee des ba léegi xam-xam nga fi waaye ku bëgg a barke toppal ci maam maaram barke bi topp na ko kuy dund tey dana xam ne wax joojee dëgg la ku fekkee màggalu Tuubaa dana xam ne wax joojee moo gën a dëggu xar-xaru doj màggal goo xam ne àdduna kenn du des te kenn du nay ci màggal gi kenn du soxor kenn du xet xol koo ci dayal kon na ku ne booy dox ci biir Touba yaa ngi dëgg ci kaw nit tànku nit bu la xoolee dafay ree cey bii yar ak bii yareen cey gi may ak gi mayeen nun nag nu am lu rëy dun surtout maama sàmm ci am dañoo bëri waa Jolof a ngi fi waa Fuuta ngi fi waa Saaluma ngi fi eh, bokk na ci alaji Amat Tabara muy xalifaab muy xalifa Ibrahima Kellel ci Caameen Waalo kon maam maaram ba léegi bu fekkee ne damay jukki rekk di gaawantu moom ba mu ñëwee ba sañc xalwaar yàlla jox ko fa ay doom ku ñuy wax maxtaar ak alfa mamudu ak algasimu mu jóge fa nag di sanc ay daara bokk na ci daara ji mu jëkk sanc tëbilëg la tëddoon la tuddoon daara ji ci tëbilëg tur woowu mooy mbàkke kajoor tey mooy caameen kajoor di topp nag fu mu ubbi daara yóbbu fa doomam wala jarbaatam wala taalubeem ba mujj gi daara yu bari di mujj di dëkk yu bari di mujj di tudd caameen kon waa yéen waa maaram mu ne sax ma nun waa maaram xam leen ne yàlla ku ko neex mu may ko lu ko neex waxtu wam ko neexee moom yàlla la neex mu may li ko neex maaram mbàkke bokk na ci la mu may maam maaram mbàkke mbaaxuk maam Masamba Caam yarub maam Masamba Caam xam-xamu maam Masamba Caam ba maam ma am mujj ko moo sànq am na ku doon wax waaye kii moo ko jàngal ma ne bari na ku jàngal nit bëri na ku jàngal nit nit koo gën laa xam dafa mel ni maam maaram ci ñooñu la bokk te du wax ngir mu neex wax ngir xam-xam la expérience la ndax may damaa jaar ci ay daara te yal na mu yal na buur yàlla musul nuy waxe ngir mu neex te fekk jëkku la neex yàlla nun dey noo ngi sant yàlla ñun ñun waa famille maam Masamba Thiam noo ngi koy sant baa duna tukki ndax lii nu am lii ngeen nu defale ci tey lii xam-xam bi maam Masamba Thiam jox maam maaram li ngeen nu defal tey xeetu njabootu maam Masamba Thiam waaye waaye njëbootu njabootu njabootu sëñ Touba ñëw fii tey wax nu li ngeen nu wax sagal ñu ni ngeen nu sagalee xam nañ ne xam nañ ne dafa am lu nu manqué ngeen bëgg noo baaxal bés ni tey daanaka raxas raxasati ngeen lu war a tilim ci njabootug maam Masamba Thiam li ngeen ñu ab sag dolli ngeen ñu nag ne fu nu toll danoo war a góor góorlu war a def li nu war a def kon nag maa ngi ñaan àdduna fii bi ma koy gis fukki at laa wëndeelu du ma ci xuus ndax mbir mi dafa guddi jam beneen jamono dana ñëw nu dem ci waaye moo xam sëriñ Abdou Lahad la moo xam sëriñ Saliou Mbacke la yàlla na buur yaat ko yàlla euh, yokk leer kenn ku ci nekk wax na ma ci maam Masamba Thiam am na yu ma ko nettali lu bari yoo xam ne ñu fi ne dégg nañ ko waaye wax yooyee te man kott kenn kottkat bañ koy wax maa fa ne sëñ Abdou moom ba ma koy wax sëñ Abdou Lakram mi ngi toog Mbay ma nga toog Samba Samba ma ngi toog Mamadou Mamoun Niang mu ngi dund moo ko indiloon ma waxande ba mu génnee téere sëriñ Touba bi moom moom moom sëñ Abdou Lahad mu ne ma ñëwal ma ñëw mu ne ma kaay ma woon la kan mooy sëñ Touba bi mu noppee mu ne maam ma Samba Thiam garab gu mag gu fi ne toog na ci tund ba di toog na ci datta bi di jàngale moom sëñ Abdou Lahad moo ma ko wax bi ma ko ñii ma leen wax ñu ngi koy fekkee. te booba sax xaw moon man lu taxoon ñii teg ma fenn ba di ma wax lu ni mel lu dul seen mbaaxuk bopp kon nag may ñaan àdduna te di di di di di jéggulu lool ci guddal gi ma guddal te warul woon waaye may ñaan àdduna bërëb bii ñu ñaan ñu def fi jàkk ci bërëb bii nu ñaan def fi kër koo xam ne gii ku mag ku mag ci njibootu maam ma Samba yëlif ko noo leen koy seedal te di ko ñaan ñaar ñi nga xam ne waaye maam maaram moo am solo di ñaan ñaan ñi nga xam ne tey ñoom ñoom ñoom ñaar ñoo bokk maam muy kan kan Seydil Hadji Malick Sy ak Xaadimul Moustapha maam maaram li ko yàlla may jafe na de ñii bu ma leen tuddee ba yem fi boo bu ma yokkee rek ku ñëw rek da ngay foog ne moo gën ko ca des jógee ci maaram kon nag lii mooy li nga xam ne maa ngi koy ñaan Sénégal gépp di ko ñaan itam kilifa ku ni mel Mama samb Thiam def li mu def yàlla may ko ndam ci ñii ma tudd te maam maaram ci la bokk jàpp nañ ne njëriñul kese la jàpp nañ ne itam luñ ko tuddee mën na jëriñ àdduna moo tax incha allahu maa ngi la koy seedal sëñ Mbacke maa ngi la sëñ maa ngi la koy seedal ne maa ngi koy ñaan kilifa yi dégg nañ ko jërë ngeen jëf yal na buur yàlla fayal nu leen yéen ñi ñëw ànd ak nun teertu si kilifa yu màgg yii yàlla buur yàlla fayal nu leen bi xormati Seydi Lu Joot wa ma zalika bi aziz sëñ Modou maa ngi lay sant waaye sant la sax dafa warul ak sëriñ bi nga xam ne sëñ sëñ Modou Mbacke si seen jëf ak seen jëfin ci jataay bi wax ko sax soogutul daf koy riiral mm. waaye ñi ko teewe gis ko ngeen mel si ni ngeen ci mel mënumaa def rek lu dul wax benn baatu maa ngi ñaan yàlla mu fayal nu leen ci barke ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala be bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala